yu baax yi moo koy jaay menuisier yi moo koy jaay euh, menuisier métallique yi ba ci sax maçon yi kon nag mu ngi doon ci kaw ci kanam ci lu baax Malick Fall sama waa ji sama gars yi ngi doon dara

xamante ne nii di homme d'affaires nit ka nga xamante nii ku am yéene la ci réew mi nit ka nga xamante nii saa yu ko dénkee réew mi di ngeen xam ne ko ci ay loxo yu wóor a muy Malick Gakou kon nag mi ngi noonu gannaaw dàqa ziar naa la dina dara jàmm bu baax a baax. moom mi nga xamante ni tànkam lu kenn wax dëgg yàlla ku ne xam na ni jot amul bàyyi na lépp ñëw ci journée bi nga xamante ne nii moom la artisan yi tëgg muy final bu mag bi nga xamante ne nii menuisier yi ñoom ñoo ko amee ak hôpital régional mu mel na que nekk hôpital régional ñoom ñoo mëneegum benn bal ci dara. Dama Kanté ñu ngi lay ziar yak délégation bi nga àndal ñëpp. Thank you. Wow! xamante ne nii régional ak euh, menuisier bu waaye ko waaye nag euh, président Seck teew fi ah ànd ak délégation bu ama am solo ñu di ko laaj rek président Seck naka gisee journée bi nga xamante nii journée artisan yi la. merci Batouba ñu ngi lay nuyu bu baax di la féliciter d'abord parce que euh, organiser mu commencé ci jàmm jeex ci jàmm surtout sport jafe na waaye dañ lay féliciter parce que. c'est pas évident première édition nga organisé ko dajale ay artisans ku nekk ak jikkoom amul xeex amul xuloo amul dem police amul dem fenn loolu am nañu ko mënul soo ko réussiree nag dafay doon loo xam ne ñun artisans yi nous sommes matures ci benn côté kon donc loolu day leçon boo xam ne bii dañ la ci encouragé félicité ci la euh, ci turu l' ensemble acteur euh, artisanal bi yëpp en commençant par le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye Euh, le président de la chambre des métiers Amadou Makhtar Seye ak l' ensemble des corps de métiers yi nga xam ne mooy 128 corps de métiers yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci ñoo nekk ci ci artisanal bi. di wax nag ci turu regroupement des tailleurs bi nga xam ne moom la ñu jiitee ñu def délégation ànd ak euh, président Malick nga xam ne moom lañ bàyyi loon lépp euh, daanaka mu mu mu doxal ko parce que moom la ñu boole woon ak yéen boobaak nag ne aussi lépp jaar ci yoon lépp rafet. moom it mu def ci sensibilisation bu am solo ñu koy félicité parce que ko xam xam sa diggante ak moom xam ne am na affinité bu am solo boo xam ne bi am nga ko ak marché Grand Thiès euh, gis ni ngay taxawee ci émission xam sa métier di ba tey nga initié lu mel nii ñu ànd ak l' ensemble président bu marché yi nga xam ne ànd nañu ñun président Baydi président Yankoba euh, Abdou Diodio Ba Mor Diono Khalifa euh, Tafa Sow Pape Seck chargé de communication ñoom Mor Diono ñoom ñëpp. ñu def une forte délégation ñëw teew loolu dafay wane ni vraiment euh, yitte yi jox nañ ko jox nañ ko Batouba waaye jox nañ ko l'ensemble organisation bi nga xam ne am nañu ko ñun suñu xol dafa sedd parce que lu ñu def rek dañ koy xeeb parce que yow da nga baax organiser lu mel nii kenn warul seetaan autorités yi ñëpp ñoo ci waroon jàpp à 100 pour cent dugal ci seen loxo ndax da nga organiser lu rëy loo xam ne lii ñun ñoo ko waroon organiser nga organiser ñu ko culturel di ko def ci xam sa métier waaye ci ci métier bi nga ne kon donc boo ko organisé mu réussir lu mel nii du ñu def lu encouragé félicité euh, l' ensemble équipe yi nga xam ne ñoo ci participé tey rek am na équipe bu ne ma ñun de waroon nañ cee bokk waaye dañ ko réccu euh, xëy na bi ñuy organisé di door xamuñu woon dimension organisation bi mais ñun ñi ci bokkoon malgré teel nañ toog. waaye dañoo xam ne li nga organisé pour c'est pour tout le monde c'est pour tous les artisans moo tax ñu def une forte mobilisation ñëw ànd ak yow euh, encouragé la félicité la ci organisation bi di wane ni deuxième édition bi bu ñëwee incha allah bu ci découragé nañ ko gën a organiser nit ñi gën laa jàppale mu gën a réussir vraiment. mais naka nga gisee tamit euh, parce que bokkoon ngeen ci tournoi bi donc yàlla euh, ngeen toog ba pare li ma ci gën a def maanaam li ma ci gën a frappé moom mooy da da ngeen a engagé wu yéen yi. wut benn coupe mooy trophée bi nga xamante ni moom la moom la war a jox finaliste bi ngeen joxe ko donc mu doon lu ma frappé quoi euh, léegi nag léegi te yéen te mënoon na la cee bañ a fekk d' abord parce que da ngeen naan bokkoon nañ ci rek am bu doon bu doon ñeneen mën nañu ko wax bokkoon nañ ci donc euh, suñu yoon nekku ci. ñu gis ngeen jël engagement jël coupe ñëw indi ko def délégation bu bu bu am solo ñëw ñëw ñëw ci jotaay bi loolu nan ngeen ko inspiré. waaw loolu dafay day gën a dëggal rek euh, leadership xam nga quand on du du ay wax mais leadership jëf la euh, tey corps de métier bi nekk na corporation boo xam ne euh, ci domaine national euh, bi dañ ne parmi l'organisation professionnelle yi fi ne ñëpp wax ko regroupement des tailleurs bokk na ci organisation yi gën a organisé loolu lañ doon jëmmal moom lañ doon dëggal parce que boo nekkee ci mbir ñu ne la yow leader nga ci te ñëpp nangul la ko amul kenn koo xam ne da nekk ci benn corps de nag bu jàpp ni tailleur yi vraiment ay jàmbaar lañu ñoom ñoom sax dañ koy wax loolu rek lañ doon jëmmal wane ne ñun loolu mooy nekk suñu taxawaay au delà de participer bu ñu toogee dañu war a ñëw appuyer jàpp parce que lu mënti xew mooy artisan moo organisé artisan moo ci gagné waaye ñun suñu taxawaay ci artisanal bi ñëpp ràññee dañ ko war a gën a fësal gën ko dëggal gën a wan ne ñun taxawaay boobu la ñu war a am même bu ñu bokkul woon sax dañoo war a def lu mel noonu indi ko ndax amoon nañu yéene bu ëpp loolu mais xat-xati jamono moo tax ñu ne nañu participer lii mais bu déwénee di nga gis ni gën nañ jàpp gën nañ bokk ci projet bi gën nañ appuyer parce que yow bul dara au delà de li ngay def rek gis nañ say émission tailleur nga ci gën a jox gëdd émul émission booy def deux semaines te doo boole ci tailleur loolu du du du du lu ñu faral tailleur mais tax mais dafa bokk ci li nga xam ne jàpp nañ ne tailleur yi ñoo ëpp prête ci secteur artisanat moo tax nga jox leen ci gëdd te loolu ñun ñuy toog di déglu rajo bi di ko seetaan amul kenn ko fi toogul tey jii fii te invité woo ko donc man yàlla dogal na xëy na peut-être euh, wax naa ko Malick nee naa ko yéene bi ma am suñu bi ma mooy ñu waajal une émission boo xam ne bii day na émission bu yaatu boo xam ne bii waxtaan euh, ci secteur bi waxtaan luy boole waxtaan luy jëmale kanam waxtaan lu ñuy defaral loolu daal mooy am yëg-yëg ci ñun ne lépp loo xam ne def nañ ko ci turu regroupement des terres regroupement des terres xeeb nañ ko pour defal la ko waaye xeeb nañ ko pour def ci artisanat bi te xam naa ni incha allah rabbi dina am ay yeneen i jotaay yoo xam ne. du organisation euh, boo xam ne bii rek dañu jëm football rek dem mais dana am yeneen domaine yoo xam ne dinañ ci lëkkaloo jéem ko organiser ci luy jariñ artisanat kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu gas euh, ki nga xamante ne ni moom mooy euh, président bu marché Grand Thiès lu am solo lii yi nga xamante ne wax dëgg yàlla am na solo ci artisan yi parce que li gis nañu day fédéré tax na it artisanat li bi nga xamante ne secteur bi fi mu toll dafa jaadu nit ñi gën a joxante loxo lii nag sur forme la boo xamante ne xëy na pour nit ñi boolool rek la mais am na leneen loo xam ne mi ngi ci kanam defe naa ne moom la ñëw ci ci li ci kanam defe naa ni moom la ñuy gën a xaar mais lii moom dañ koy def pour ñu gën a jaxasoo daal waaw ah, loolu moom defe naa ni. yow it nga ànd ak Abdou Diodio tamit euh, mu nekk nit ko nga xamante ni kenn la ci association bi. waaw ma ànd ak euh, Abdou Diodio sama frère. di vice président. di sama waay. mais aussi ma ànd ak euh, le coordonnateur. muy xalifa Diop. ñu ñëw wax dëgg yàlla fekk fi tamit les président des marché muy président Bay di aussi. les te ma dëgg yàlla ñu def délégation bu mag. ànd ak gunge suñu président daal ndax tey moom bis bi moom la ñuy gunge <laughs> waaw moom la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a. suñu président moom fu mu teew fu ne dañ faa war a teew ndax li ñu yàlla boole waaw beneen bisit mooy yow ndax cër bi nga ñu jox boo loo xewle lu ne ñun ñëpp artisan yëpp war a teew loolu ñaar yooyu bokk na si tax ñu ñëw. bisi na si mooy kontaan ci lool si taxawaay bi ñu ko taxawal ndax ñun ay artisan lañu des fois dañuy xaw a fàtte te ñun ñoo war di génn suñu bopp te yaa ngi ci yoon wi di ñu woon toujours naan ñu yéen fii ngeen toll nii ngeen lii mooy seen niveau génn leen def leen léegi rek yaa ngi koy wax naan pourquoi si kanam war nañu doon maire wala leneen leneen ak yeneen ak yeneen mi ngi si kanam kon boog lu mel nii rek mooy tax ñu mën a booloo xam ñun valeur bi ñu am si dëkk bi ak lan moo ne si kanam loo xamante ne war nañ ko def te nit ñi dañuy fàtte waaw kon euh, dañ la si encouragé bu baax a baax di rafetlu kii bi di encouragé tailleur yi bu baax aussi euh, ndax nit ñi def rafet na ñun ay artisan ñoo bokk lépp waaw amul tailleur amul maçon ñun ñoo bokk lépp artisan artisan la kon boog euh, bëgg nañ ci lool ci délégation bii ñu def si ndigalu président Maodo Seck waaw ñoo jaajëfal bu baax jaajëf. ak euh, ñu ngi ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Mamour Nana bokk ci invité yi. ah ndaxte moom mooy président VIP de Talla wax dëgg yàlla di nit ku am valeur ànd ak day as Camara ah, ak Mareetu Seenu Kalidou ah euh, ñuy rafetlu seen teewaay bu baax a baax waaye nag di leen laaj tamit naka la ñuy gisee li nga xamante ne nii moom mooy final bi artisan yi di football tey jii muy waa hôpital régional ak euh, menuisier bu waay. Fatou Ba maa lay nuyu di la ziar di nuyu képp koo xamante ne rek teew nga fii di kontaan bu baax a baax ci. kii bi ngeen jël. tuddee ko ki nga xamante ne mooy suñu président muy Mamour Nana muy président tous les VIP bu di jetaa la ak sama doom yaay bi ñëw gunge ñu wax dëgg yàlla ñu rafetlu ko torop bu doon suñu sago ñun ñëpp ay teew mais li ñu naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam moo tax ñu mënta ñàkk daal ñoo fi teew di wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañ torop ci xalaat bi ngeen jël pour tuddee Mamour Nana tu bis bi kontaan nañ ci lool torop dëgg yàlla ah am nañ ci daal contentement daal waaw kontaan nañ ci trop ndax lii tamit day boole ay nit day boole ay nit wax dëgg yàlla te ñun lépp loo xamante ne rek mooy boole ay nit rek ñun pare nañ pour ànd ci ndax ki nga xamante ne mooy sunu njiit muy DJ Talla wax dëgg yàlla ci loolu la ñu yar mu fekk ci Mamour Nana aussi tamit ku ko xam xam ni wax dëgg yàlla luy boole ay nit rek lay ànd. moom lu lu boolewul ay nit moom àndu ci wax dëgg yàlla kon nañu wax dëgg yàlla rafetlu nañu bu baax a baax li ngeen ko jox parrainage bi ngeen ko jox kontaan nañ ci torop torop sax bu baax. Mariette yow it noo gisee euh, journée bi <laughs> wala da ngaa ragal. ah <laughs> jënd sànni ci kàddu rek comme ça ñu mën a. waaw ba Touba ñu ngi dañu di leen ziar di rafetlu vraiment li ngeen tuddee suñu doomu yaay suñu doomu suñu xarit maamu maanaam di am contentement vraiment li daal dafay boole. waaw lii daal mooy loolu kontaan nañu daal di am baax a baax mais nag laa woon si li ma siy wax ndax man mënu ma wax daal. wa rahmatulah. dama leen di nuyu yéen ñëpp. ak seen i sant. ah leen gërëm di leen ñaanal aussi. parce que initiative bi ngeen jël nii tey di ko def. ah taxawaay bi na parce que lii mooy war a ne kees yëpp benn lañu. ah lii nag daf ñuy neex. ñun. ñu doon leen doon formé xale yi lii rek lañ doon ñaan yàlla def mu am ndax xamante bi mën naa jur lu nekk te mooy ànd bu rafet wane ni ñun nous sommes des Thiessois te suñu nekkin rafet na ñoo ngi leen di gërëm ci di leen sant waaw. Euh, waaw waaw waaw dëgg la dëgg la waaw waaw dëgg la man nag yàlla dafa dogal. Ah. sant mun naa wax ne ku bu ma bi wane woon Thiès ñu bari dañ ma naan ah kii day borom xam-xam yi dañ naan euh, bu dee diw xam na ñu ne borom xam-xam yi. mun naa wax ne au niveau de Thiès ku yàlla dogal na lu jafe ci seen ba seen wàllu liggéey sax ma leen ci donc koy def rek par bés yoo xam ne damay am ay repos yooyu mais moom mën naa wax ne. yàlla dafa ci may ma ci liggéey yoo xam ne ay port ak lu nekk daal ci wàllu menuiserie lu dul wàllu bant rek suñu borom dafa ci may dama koy sant yàlla nag ndax yàlla dafa ko may mun naa wax ne atelier pilote atelier pilote ci la ñu jaar. bon defuñu yenn formation yi mais ah. yàlla def na bu ñu defee bu ñu dajee ñi nga xam ay borom xam-xam lañ ci wàllu pant ah. dañuy bàyyi xel loolu dañ koy sant yàlla waaw ah, maa ngi dégg tamit ne xale yi football bi menuisier parce que ñëpp yaa leen formé waaw bari na ci nag xale yi football bi mën naa wax ni ci bari maa leen formé ba léegi bàyyiwuma leen tamit parce que toujours maa seen ginnaaw di leen corriger bu ma ci gis ba def loo xam ne xëy na gis docteur sama gis-gis dama lay dama lay jël toogee ci suuf suufu groupe bi waxtaan ak yow ni la nii bu ko defatee defal nii defal nii wala damay jël sama tànk dem seen atelier ñoom ñëpp di wër di leen saytu ndax bu ñu sañoon ñi ñuy doon ci bant danañu doon yoo xam daa daañu weesu fii ak ñun parce que tey lii ma xam nii bu ma sañoon xale yëpp xam ko te loolu laay ñaan ndax bientôt mën nañu jël suñu retraite mais yàlla dogal na ah bant tamit ñu bari xamee nañ ci. bari na ci dëkk bi am nañ fi ay œuvre def nañ fi ay affaire yoo xam ne xëy na peut feeñ ci média yeeg yooyu waaye am na bari fu ñu siiw lu ni que ay jeu alaaj Malick liggéey nañ fa ay liggéey mucc ayib yoo xam ne ku ko mën a def da nga naan liggéeyoo ko Sénégal mu daal di cité ay nit yoo xam ne ñoom Albourila télévision laay waxee bon ñoom ñëpp seen kër yi maal daanaka maa ko liggéey ak ñeneen nag tant d'autres daal bon yàlla def na yàlla ba léegi bàyyiwuñu di gën a dolli xale yi parce que li ñuy wax ne pour te ñaari sa ndono sa teewee ñaaw euh, waaw Aliou Diop euh, adjoint au maire de la ville de Thiès donc euh, di ñëw fii accompagner nos frères et parce que ñun au niveau de grand parti bon on est des amis nous sommes des mbokk sax lay ami et Daara c' est euh, Daara Kanté euh, je peux dire que c' le membre fondateur du grand parti à Thiès donc mu ñëw fii ñu ànd ak moom tey accompagné ko ñu ànd ak. Euh, Babacar Ndiaye qui est un conseiller donc euh, municipal à Thiès Nord ànd ak euh, Moustapha Niass qui est à l'ouest qui est le président de l'Atomic et un grand responsable euh, au niveau des jeunes du grand parti membre fondateur aussi du grand parti ñu ànd ñëw vraiment ñëw ci seen bés bi mais naka nga gisee euh, organisa bi nga euh, organisation bi ne nii euh, ab artisan moom moo ko moom moo ko moom donc def ko muy tournoi de football moo xam ne artisan yi ci bokkoon bari mais tey jii nag fii mooy tey jii la final suñu xarit ci invité yi donc naka nga gisee maanaam loolu ñu créé ci artisan yi. waaw ah, mais d'abord di saluer. l'innovation et l'esprit euh, d'équipe parce que les artisans soo leen xoolee li leen caractériser mooy euh, l'esprit d'équipe l'innovation et le goût du risque mais pas un risque inutile artisan c'est disons ay nit yoo xam ni yàlla moo leen baaxee parce que xam nga tey àdduna loo jàng ci ay këyit comme li Ismaïla loo wax jàngal ba yooyu këyit yi ñu ne la loo mën a liggéey nga ne dara amoo amoo njëriñ ci askan bi kon artisan ci xam dara balaa yàgg avec la nouvelle vie qui va se créer vous allez voir que les pouvoirs publics beaucoup d'importance à l'artisan. Ce n'est pas pour qu'il y a une chambre des métiers. Et ce n'est pas pour aussi à Thiès que chargé de l'artisanat lii ngeen def maanaam ñun kay dañuy bëgg ñun gën a far daa ko proposé Daha demain je crois il a rencontre avec le président Malick Gakou wax ko ko moom nekkoon na président disons nekkoon na ministre du commerce xam na lan mooy chambre consulaire c'est un docteur en économie Malick Gakou beneen rencontre mu nekk la suite de li ngeen di def c'est pour vous montrer l'importance de l'événement. waaw lay jaajëf bu baax di ñaan yàlla tamit kon sañoon yow ñaar dañ ñaan maa ngi doon nekk président bi incha allah yàlla ko yàlla ne bi dara dëggul initiative yi nga am. lan de yàlla na ko yàlla def. merci beaucoup merci. Ah, dafa xaw a métti parce que dama fi toogee ñetti casquette dama fi toogee toogaayu président chambre de métier mooy Amadou Makhtar Seye ak suma xarit Abdoulaye Fall PDG Jàppal TV bi waaw ak tëjee tey mooy Baye Laye ñëpp xam ko nag xëy na ñu bëri xamuñu moom mais man fii regroupement des électroniciens de la région de Thiès man maay seen ba tax na pour techniciens yi nekk Thiès yëpp ñoo ngi lay sant di la gërëm ci initiative comme ni la ko yàgg waxee rek su ñu gisee lu rafet tamit boole la artisan yi ñun dañ ci sawar ba tax na li suma grand taax a jaan léegi dama la koy ñaanal édition yi di ñëw yàlla nañ ko def ci stade yu gën a mag yàlla mun na ko yàlla na def waaw maa ngi lay wax sama xarit Abdoulaye Fall ñoom ñëpp amoon nañu yéene teew fi mais sorti yeneen benn bés daje mais incha allahu rabi lépp lu ci war moom dañ ci taxaw soob yàlla jërëjëf. asalaamaaleykum wa waaw daa ni euh, man maa ngi teewal Gangaay Médina Munawara nekk fële Mass Central léegi ñun nag ñu ngi ci wàllu bois bois ak yeneen ak yeneen xam ne mën ci bois yi dañ koy soxla waaw daanaka am jaay moom dëgg yàlla lépp ay at a ngi nii daanaka saa bu ñu jógee fa lañ jëm waaw bañ na ko bu ñu jógee ba ñu doon fenn danaan xaañ tamit ci tënkaay bi kon ñoom ci tëgg lañ bokk kon tey jii ñu bu ñu woowee ci bés bi wax dëgg yàlla day day ñu bàyyi suñu lépp ñëw taxaw

xam naa nag doole yi ñoo yamul na xam naa loolu waaw doole yi yamul ndax ni ma ko tëddaa ñu xam naa ne moom mais ñaar yëpp ay jàmbaar la ay jàmbaar la loolu franchement waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñëpp di leen ziar ah, di kontaan bu baax nag wax dëgg yàlla initiative bi neex na lool ci ki ko organisé ñi ko doon jéeg ñëpp ndax gars yi daanaka am ñu ñëpp benn la man ju bàyyi rek commerçant yi daanaka ñoo bokk daara ji ndax wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom lool ndax sax ndax sa saa bu ñu jógee amuñu fenn fu yaakaar ko bala ñoo dem fenn fenn fenn bala ñoo dem fenn amuñu kenn ku ñu woo loolu kenkaay Madinatu Munawwara kon tey jii maa fi taxawal kenkaay Munawwara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañoo teew mais mënu ñoo teew. ban message de encouragement ngay wax secteur artisanat bi. waaw xanaa gën jàpp gën a góorgóorlu rek wax dëgg yàlla xam naa ni moom lépp dina baax incha allah ndax ay jàmbaar lan ndax ñoo yàgg ñoom gis nañ leen li ñu liggéey gis na leen baax a baax xam nañ ay liggéeykat la merci Kenkayri Medinatul Munawara ñu avancé ci remise yi parce que temps baa ngi ñuy xaw a ñu dem ci deuxième bi nga xam ni moom lañu ñu war a joxe. amul les menuisiers bois ñoom ñi xam ñooy vice champion ci tournoi bi ñu demande seen capitaine ak le responsable. capitaine ak responsable bu menuisier yi ngeen ñëw fii doyen Daxa Kanté mooy joxe trophée bi les menuisiers ñu ñëw jël seen trophée ah macha allah trophée bi tur wuyu na borom ndax ku gis trophée bi xam ni vraiment menuisiers yi wàcc nañ maa ngi leen di Moussa merci ngeen tàcc ko bu baax a baax voilà macha allah photo de famille voilà merci ok. voilà euh, responsable. bien Babacar. et eh, même bu doon benn nit la dafa war a yabal mu ñëw fii tey pour vraiment dooleel xale yi nga xamante ni ñoom ñooy artisans yi. parce que loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy dëgg il faut pas qu'on fasse de la politique seulement pour faire de la politique wul ngay xaar ba nga xamante événement jot na ngay jël di xale yi di leen di leen di leen leen indi ci sa wet dana jox tuut moom su ma fi ñëw même su ma nekkee ci grand parti su may ñëw di wuy si sama rakk bi wuyu suuma ko politiquement dama ko wuy si parce que suñu papa yi ñoo doon ànd su ma coondoo papa mu ngi traîné seen kër ba am doom nekk fa kon dama leen di ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéeneen ndaw yi gëm leen seen bopp fulla ak fayda rek mooy jaay Dakar leneen du ko jaay bu leen yaakaar ci poosu kenn yaakaar leen ci seen bopp su ngeen amee seen 1000 francs bu ngeen xoolee tey Bokar Samba Dieye nga xamante ni mooy dugal bata ceeb bi fii il a commencé avec 3500 francs mu ñu lebal ko ko tey ba muy dugal ay bateau ceeb ay 800 milliards kon ku gëm sa bopp rek dem si kon nag maa leen di ñaanal yal na leen yàlla may jàmm yàlla may leen ngeen ànd ak fan yu rafet yéen yàlla may jàmm kenn a manqué ci ñun. ban message ngay wax ci ndaw ñi nga xam ne ñu ngi xëccu jëm ci gaal gi te ñu mën a toog fii tekki am seen entreprise ak seen propre moyen. waaw loolu la laa wax parce euh, boo xoolee gis nga nit yi bu a boppam liggéey rek àdduna baa ngi nii ba ngi démb mais dajale jigéen ñi ci grand di leen may saalis di leen financé xaalis boobu ma leen mayoon bokkul 6 mois nii tey xaalis boobu mu ngi di presque ay millions 3 millions kon dama lay wax rek bu nit amee 5000 francs commencé di liggéey nga fekk boppam gis nga xëcc d' accord yàlla ku mu woo nga dem fu la neex mais boo gënee sa bopp boo amee dara nangoo liggéey ba nga xool ba yëfu wallaahi lazim boo toogee ci Sénégal gii di nga liggéey te di alal bu dul te yàlla ñu ko yàlla may ci kàttan merci di message fort bu euh, président Daxa euh, Kanté dégg ngeen ko ñëw na dooleel te promesse bi rëy na secteur bi nga xam te ne mooy secteur artisanat ngeen gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ñi nga xam ne bokk nañ ci tournoi bi dégg ngeen ko li xaar te it lu mel noonu la président Mamadou Seck wax ndax indi na fi trophée bu mag a mag a mag euh, jëmbal ko OPA bu textile habillement muy regroupement des tailleurs nee na moom it dina indi lu raw loolu euh, feelu ki nga xam te ne mooy euh, président Daha Kanté pour que secteur artisanat dina jëm ci kanam kon nag ñu woo ko dalal ko président Mamadou Seck président regroupement des tailleurs ñu dem nag ci da dëpp gi jox ñi xam te ni mooy léegi voilà voilà voilà dina ñëw bon bala ñu dem ci remise bi euh, ki nga xamante ni moo euh, organisé wu mooy initiateur nekk jàmbaar yoo xamante ni Thiès xam nañ ko di sagu Kajoor saa yu yëkkatee kàddoom kàddu yi rafet saa yu waxee nit ñi mën cee jariñu à travers média bi muy yëngatu mi ngi def ay message fort mi ngi liggéey liggéey bu rafet Bathioula ban yëgee nga am ci événement bu bi ak organisation bi. waaw damay sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye it ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom li nga xamante ne nii fu yàlla teg doomu aadama moom moo tax kon nag ñu ngi julli ci yonent bi bu baax waaye nag euh, di sant suñuy waajur bu baax tamit di sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni nii bàyyi nañ seen temps yëpp ñëw ci bés bu rafet bi wax dëgg yàlla muy grand baax a tante sant nañ ko bu baax gërëm ko di ko ñaanal yàlla tamit parce que ñoom kenn ku nekk ci ñoom am nga yéene ci réew mi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla mottali ci réew mi waaye it di gërëm bu baax a baax membre naana bu baax ah man tamit ànd na ak délégation bu am am solo ah ñëw ci bis bi nga xam ne bisu artisan yi te moom nag loo xam ne ñun seen xaalis la di liggéey liggéey bu ci ayib di gërëm tamit équipe bi mu àndal jiital ci di di jóg waaye di ci biir artisan yi muy Moustapha Sow ak ki nga xamante ne nii moom mooy euh, euh, Moussa Moussa Keita. ci xol lay jógee lu jóge ci xol ci xol lay dellu te gis ngeen euh, Batouba li ñu doon seere ci moom. nit la koo xamante ne nii ni nit sàll euh, leen ci modèle yi mel nii Thiès amatul problème mu modèle Thiès amatul problème mu rayukaay am ngeen ay idole am ngeen ay rayukaay gis ngeen ko vraiment bi muy jël kàddu yi cant ak ngërëm di ko delal euh, jagleel ay nawleem euh, xool fees na alhamdulilah dina jël mot de la fin mais sans plus tarder comme waxtu yi ñun ñuy tënk alhamdulilah ñu bàyyi ko tuuti mu gën a kii ñu introduit président président ñu bàyyi la nga yëkkati kàddu ci honneur bu am solo bi leen ñu defal OPEA textile et habillement en tant que président regroupement des tailleurs ban yëg-yëg nga ca. Euh, merci beaucoup ñu ngi nuyu fi teew ñëpp Pape Seck euh, di féliciter notre frère Batou Ba ndax lu mel nii bi ñu ko tegee am nañu ko gëm am nañu ko gëmul moom am na ñu ci consulté woon. dama finalement ñun dañ ci bopp parce que xamuñu mais tey li may wax ak yéen ci télé laa waxee li may naan ko ci final bi laa jëm trophée bi laa yóbbaale daf na ma ñu doon rëccu lu tax bokkuñu si te ñoo ma ko waxoon ñoo ma ko waxaat tey kon dafay wane ni li a jóg def ci poche am man xam naa ci dara tournoi bi amu ci dara mais gagné na ci doomu aadama yi parce que man xam naa ci lu bari ma xamul kon dañu koy encouragé te jàpp naa ni lii phase test la lii première émission mais li ñu fi dégg léegi su suñu suñu doyen la wax ko mu doon loo xam ne lii damaa jàpp ni man édition 2024 incha allahu yi jag na ba pare ku mel ni moom ñoo ngi ñuy wër parce que ñu mel ni Batouba bu organisé bi ñu war a jàppale di nuyu de passage monsieur le maire bu baax euh, ci présence bi nga xam ne ci délégation boobu la ànd vraiment ñu rafetlu nga xam ne regroupement des terres dafa am partenariat ak hôpital régional nga xam ne chaque année ñu organiser ay dons de sang pour dimbali ñi nga xam ne dañ ko soxla les Monizoba suñuy partenaire la ñu malgré suba ñu dañu waaye teewul tey bàyyi ñu dañoo ñëw xam ne ba li mu def artisan yëpp la koy xam au nom du ministre de l' artisanat docteur Pape Amadou Diagne en tant que secrétaire élu de la chambre des métiers aussi su ma waxee au nom de la chambre des métiers ci turu président Amadou Mokhtar Seye ñu ngi koy félicité di ko encouragé te jàpp nañ ne buñ ci jógee dina am ay encadrement yoo xam ne léegi rek wax naa ko ma ne ko bi ñuy def ñun artisans yi war nañ am yeneen i ndaje yoo xam ne yi daf ñuy permettre suñu métier yi ñu gën a mën a xam fan lañ ci jëm te loolu defe naa ne indi nga yoon wi te wane nga ko ko parce que ku ci nekk ñeme na sa morom kon le regroupement des terres bu ñu defee délégation ñu yëkkati trophée jàppale ko ko encouragé ko ko loolu dafay wane bi xam nañ ñu parce que xam nañ fan te ñun dañ ci a jàpp ñun nag bu ñu nekkee secteur textile habillement ñu ñuy wax ni bokk ngeen ci organisation professionnelle yi gën a ràññee ci Thiès wala ci Sénégal suñu devoir mooy que ni artisan bu xewle suñ ko mënee teew ñu teew itam jàpp am solo loolu la laa ne woon naa bi ci yëkkati di nuyu de passage suma frère Ousmane xam ne à don li nga xam ne moom mooy métier bi dañu daje ci beneen domaine muy domaine sport bërgi démb la ñu formé ci wàllu sport bi moom nii mu bokk jox leen ay diplôme au nom du ministère des sports ñu jaarale ko ci moom moom yàlla def ñu bokk ci ci cadre sport kon bu ko fekkee ñu sama xarit di kenn koo xam ne kii dañu ànd di liggéey naa koo seede ñu ko baax la moom mii vraiment liggéey bu am solo bi ñuy def hôpital régional ak yeneen yi ñuy def ñun ñëpp leen di féliciter di ñu ngi leen ak l'équipe bi nga xam ne ñoo ci teew tey jàpp ci liggéey bi ñu xam ne ñun nous sommes une famille artisan yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoom gën a jàppoo ñi ñu gagné tey ëllëg mën nañu mën nañu gagné parce que affaire bi du du maa gagné kii moo jël trophée bi mais ñun ñu xamante bokk ndey dama ko bàyyi loolu mooy suñu suñu objectif. di sant délégation bi ñu àndal yëpp ni tous les présidents des marchés ak vice présidents yi ak délégation bi yaatu na pour que bu ñu limee bañ a juum mais incha allah bu déwénee ñun ñu participer ak ñu bañ a participer ci dugal suñu loxo comme il faut te vraiment waxuma sax. lii ñu organisé réussir ba tey mais ñëpp ñoo ko war a jàppale te autorités yi kenn war a jiitu leen ci nañ dugal seen loxo mais nañ ci seen loxo ba pare yu mel nii bu amee ñuy teew di magnifier leur présence parce que dina yokk doole ki nga xam ne mooy organiser bu ba ëllëgee mu am courage ak opportunité mën a organiser vive le secteur de l'artisanat je vous remercie. jërëjëf donc ñu ñaan bàyyi ñu espace tuuti ñu invité euh, équipe équipe beneen ngeen ñëw hôpital régional ngeen ñëw presse bi ngeen may ma reculer tuuti ñu gagné beaucoup d' espace pour ñu dem ci remise bi ñu ngi demandé équipe bi ñëw leen voilà voilà na ñenn ñi xaw a toog tuuti jonkon ñu dem ci remise bi voilà toute l' équipe mais voilà merci ngeen voilà dem si ginnaaw le capitaine d'accord président Mamadou Seck nee na président Malick Fall mooy remettre trophée bi may ñaan euh, Batouba Batouba nga ànd président Malick Dijé nga may ñu tuuti son nga pincel ñu tuuti ñu dem chronique bu symbolique bi nga pincel ñu tuuti pincel ñu tuuti Batouba réussir voilà li ma nekk soo ko dee mu remettre ko doomu aada yi bëri woon nañ utile bu doon benn utile kese a def santé ak ñu ngi na xëy na keneen demaat waaw man li may ñaan nag ñu bëri ñu ñu ko abandam ñi ko organisé woon yàlla bàyyi leen seen kanam mais ñun ñëpp ak ñu ko yéen ñëpp merci ban ban léeg-léeg nga gis sa morom rakk yi sa jëmbaat yi ñu joué ci même vraiment discipline bi te jàmm rek euh, lal ko euh, ak benn fraternité bu dëgër euh, lépp lu di biir Thiès dañuy dellu tëb si place naa bi moo tax liñ ñu fekk si leen si affaire comportement yaru parce que boo yarul doo am yenn yi parce que yaru moo lay may yenn waaw yàlla na ko yàlla may wér ak wér fan. ok jërëjëf di kàddu capitaine bi nga xamante waa bi euh, waaye organisateur bi la ñuy moo de la fin ñu gërëm ñi nga xamante ci euh, euh, gërëm li ma doon wax sànq rek moom mooy ñi ma àndal ci liggéey bi ndaxte man dong mu mu gën a oyof ci man. Didi Diop sant nañ ko bu baax gërëm ko waaye moom moom aussi suma jarbaat ma doon arbitre sant naa ko bu baax gërëm ko moom tamit di sant bu baax tamit Malick Fall dafa am tey contre temps moo tax ñëwul mooy arbitre doon arbitre yeneen match yi donc ma sant leen ñoom ñëpp waaye sant sama sœur bi fi ne taxaw fi tey taxawaayu yaay mooy madame Diaw ma ko sant bu baax a baax di sant tamit sama aaw mi ngi fi toog bu ñu mënee jege sax nii sama aaw ak sama ñaareel taxaw fii gaa yi xam leen nii ñii ñoo sama soxna Aliou Diouf exil Khady Diouf exil parce que c'est très important parce que muy guddi wala muy bëccëg ñaaral xeetu jëkkëram yi nii ana awa buuru këram ma ñëw comme ça ma sant leen ñoom yomb na yomb mi ngi noonu ayca nii ayca ayca nii maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm comme ni ma ko waxee léegi ñoom ñoom ñoom ci ñoom sant naa leen bu baax maa ngi ñaan yàlla sant borom yi. macha allah mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu sant nañu bu baax gërëm waaye nag boo gisee mu tudd léegi Moussa sama xol tooy daf teel moo fi tudd dama ko sonal Moussa dama ko sonal. muy guddi wala muy bëccëg muy suba wala muy ngoon xaaral ma ko woowee ne ko lii laa soxla mu daw ji te du gàntu te du gàntu moo tax bu mu tuddee turam sama xol tooy ndax xam naa ne sonal naa ko ci affaire yi te xam naa ni joxe na li mu am lépp ngir bëgg affaire bi réussir moom yeneen mel na ñoom kon nag ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm di ñaan yàlla yàlla bàyyi ñu fi bu déwén ak jàmm ñu def beneen feet bu dàkk bi incha allah ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. merci waaw jërëjëf mu nekkoon événement bi nga xamante ne nii mooy tournoi bu mag bi nga xam ne Batou Ba moo ko organisé woon euh, boole secteur artisanat bi boole ci ñi nga xamante ni ñoo wax hôpital régional euh, nekk secteur santé ba nga xam ne tënkuwul kenn vraiment ñu nekk vainqueur yi euh, événement bi am na solo ñu àndoon ci ak OPA yëpp ñu daje ci biir ak Zona ci loolu la ñuy nuyu président chambre des métiers Amadou Bakar Seye président chambre des métiers ñu rassemble corps de métier yi nga xamante ne ñoo bokkoon ci événement bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. trophée bii nga xam te ni moom la waa euh, euh, euh, régional gagné président Mamadou Seck nekk président regroupement des tailleurs ñoo ko préparé mu offrir ko ñi nga xam te ni moom mooy Batouba mu jox ko ki moom mooy vainqueur bi lii mooy Sénégal lii mooy Thiès nañu àndandoo gën a dooleel suñu dëkk gën a dooleel capital bi daay parce que Thiès mooy carrefour de la mode. ku wax mode wax mode et culture kon nañu gën a dooleelaat lépp secteur bi di invité des acteurs invité autorités communales yi euh, ñëpp rek ñu tourner autour euh, de l'artisanat pour gën a dëgëral euh, secteur a jëm ca kanam kon ñu àndoon ci ak télévision la RTT TV ànd ci ak suñu confrère yi waa Thiès TV doon leen présenté li nga xam mooy finance bi di seen rëdd bu am solo ñu jox leen di daje ci beneen édition ak ci programme